ñun ñëpp ñu nekkoon ci moom ñun ñoo ko ñun ñoo ànd ak moom mais gars xamatuñu. Bas! Hayır. Evacuez, evacuez, evacuez.